maa ngi lay nuyu bon c'est vrai que c'est vrai que y a des gens c'est vrai yu ñu accusé ne dañu bëggoon kaaw dans ce pays qui tirait sur xam nañ leen ngi fii mais c'est le projet de loi de finances bi moom moom ngeen ñu ah. dafa mettre en avant la Quelqu'un nous parle, nous dit ici que le plan Sénégal émergent est une vision, mais vous, vous nous avez dit que c'est le modèle économique. Je pense qu'il faut que vous entendiez avec certains de vos députés qui cherchent maintenant ce modèle économique là en termes de transformation structurelle de l'économie lan la ñu indi mënu leen jox benn secteur de l'économie bu transformé wul de façon structurelle bu dee agriculture xam vraiment ngeen wax ma dans chaque secteur ce que vous avez réussi à faire pour transformer l'économie de façon euh, euh, euh, structurelle nous n'avons même pas de tissu industriel il n'existe même pas vous nous parlez aussi du capital humain c'est vrai un peuple ne peut pas université Je ne crois pas que vous soyez dans cette dynamique de développer le capital humain en termes de formation professionnelle gis nañu parce que capital humain dafa am lu muy àndal day ànd ak c'est vrai nous avons le secteur informel